damaa demone doon euh, jeli avance. waaw mais neexul ba neexul man la wax. Hmm. bima gis transfert d'argent, ci Sénégal ba léegi bii gis ni musuma ko gis. ah li jàmm oh. euh, fiable ah. waaw worna amna sécurité. nan ak na fais eh, attention amna message yo xam ne day ñew ba paré te do gis xaliss mhm. loolu dañ ko xoolal balaa ya wéro yow ndey Seydou bu savoir mais na ci États-Unis bi ci lima ma man déggoo li ma gis transfert d'argent, ba léegi. wax gisuma bu mel nii. booy booy bu naan dama dama la ciy mosal rek. mooy toog yow sama yoon newu ci débat bi dama la ciy mosal rek. waa ñëwal loo ñu ciy may. dama ci barkeel waa ñëwal wax nu. benn la. waaw li fi ne ci transfert d'argent kenn xam nu mu toll. waaw bari na de Sénégal daa bari transfert d'argent wax na loolu dëgg la. Mhm. waaye bii ngay wax maa ko mii. Mhm. ah bon. booy seet fiable. Uh-huh. sécurité. waaw garantie. Uh-huh. non seulement li ci gën a neex boo ci dugalee sam xaalis sam xel dal. waaw du lii la euh, wax nan nan la sa xel nga bu ñu sàccee sa téléphone sa xel nu muy dalee kon ñu ko li xew ñooñu xam ñoom dañoo ñu sàccee sa téléphone sàcc nañu sa téléphone waaye sàcc nañu sa xaalis déedéet te sa téléphone réer sa téléphone sa téléphone réer ñoom rek ñoo ko fi def mën naa sa xaalis du dem te nekk li mu wax maa koy dëggal dama bàyyi baggal sa baaraam benn damay barkeelu de ma ne mën naa bàyyi damay barkeelu ñëwal ñëwal fi mu ni moom ñëwal ñëwal la ñu dégg benn damay barkeelu mën naa bàyyi barkeelu mën bàyyi da ngaa dafa bu fekkee da ngaa dugg les grandes dugg ci bitiku produit ñaar supermarché yi. ñeent wala nga dugg ci supérette yi. mo moo ca man. la ilaha illallah. li ngay ciy jënd da ko ciy jënd lo xamanteni ni non seulement ci sa téléphone nga koy jëndé waaw waaw mbax li jax ta mbaax. Ah, dama barkeelu dama barkeelu. non dëgg la non dëgg la. da ngaa barkeelu de parce que gis na ko ci application man ba ma ne téléchargé application bi ma ne ko ndey seen sabor lii lan la mu ne ma bii ma lay téléchargé loo nii bii mooy bi baax bi ndax Sénégal daa bëri ay ay transfert d'argent waaye bii saa boo ko téléchargé nga xam ne boo ko tegee eh, ne loolu jar naa tànku maanaa ah, ah, ah, loolu jar naa tànku wura mbaax ke géen wura dantal kii san mbaax da mbaax binda sa mbaax binda sa sa sa sa mbaax binda sam ratan bi naaj wura bra sakin wura mbaax ki ja mbaax tambra sakin jakkin kas kas gogo rangi dada basar rangi san kas kas gogo padana na in urana baca in uran cak in urak cak in padana na in bina labra bina na baca gibsa brede gina tak kita gina tak kita gina tak kita gina tak kita eh dama ci dama ci malax mi ni ko anda non non non non ci dama ci barkelu rek eh